cousin waxtu dara ba xale bi nekk sa cousin. am nañu ne wax mag mag Gane dañoo niroo. yow ak maam Gane. mag Gane dañoo niroo. yow ak Gane da ngeen nu ko. I can see that now. I can see that now. You can see that, right? Yeah, I can see that now. Yeah. sëñ bi du mun a am. man découragé naa bu yàgg sax en ah, sut. nga suddee Sadio rek laa suddee gànn. ay yooyu bu fi indi débat waa baay baay. ba. ni nga suddee sa jëkkër bi daal. eh xoolal man boo ko woon sax nga woo ma gis nga ma nii gisoo ma instant damay waaj tëddi. non dama la wax loolu dama la woo pour wax la loolu que sëy bi am daal maa ngi tànn écousin lañ. yaakaar naa sëy bi mëntul am sëy bi mënul am ba na sa cousin la bro démb laa ban ban ban moo nekkoon kii bi yan animation la woon damay woo nit yi après laaj leen ba son lañ bëgg après ma teg leen ku nekk DJ daal ñu soo sama micro bi toj naa fi oh yeah non toj naa fi ok léegi léegi demal ñu xool man ma seetaan maa ci suuf ah, ah baax na léegi may ñu ñu animation bi ma wàññi seetaan ah